seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbale yër yi ak mer tar gi nga xam ne étudiants yi mer nañ ko te nee nag nee nañ duñ ko wàcc benn yoon ginnaaw fukki fan ba kii nga xam ne seen ñooñ la woon di fàllu seen génne àdduna démb nag Sénégal gi yëpp ñoo yëngu ndax marche yu takkar takkarnaase yoo xam ne étudiants yi amal nañ ko ci réew mi yëpp Ndakaaru ba Ndar Jurbel Thiès Tëngéej ay étudiants yu bare bare bare bare lim bi kenn mënu koo xayma ñoo génne wanuk seen mer ne faaw Mary ñaan tekki ndombal tànkam ak ñi ci topp ñépp ñu ne déetawaay ñu ne faw ñu wàññi ticket restaurant yi yokkit li nga xam ne moo di bourse bi enquête ne dëgg la de dëmb seen doxu ñaxtu bi ñu amaloon mer gu tar lañ ci ànd ak nee na justice la ñu bëgg ak it ay daan ñu teg ko ñi nga xam ne ñoo def njombe yi yéen kaay bi di l'observateur ne seen université Gaston Berger moom ñëpp a noppi woon ndax am leen naqadi lool ci génn àdduna kii di fàllu seen doon jàngee ci béréb boobule ba tax ki nga xam ne moo di président coordination des étudiants bu UGB yëkkat na kàddu ne de coow li bari na lool de waaye ñun étudiants yi du ñun ñoo xam ne ñu xam ger lan kenn mënuñoo ger benn yoon yéen kay le quotidien ne est-ce que jàng mën na amaat ci université Gaston Berger ndax nag waa SAES e di professeurs yi ne neen conditions yi réunirul benn yoon ngir ñu mën a tàmbaliwaat jàng ci université Gaston Berger leen fa yàq dafa bari Casamance tension ba tey jii yéen kaay bi di laas ne attaque moo fa am ca Samek ñi nga xam ne ñooy def yooyu loolu nag di ay assaillants ñoom ay rebelle faat nañ xale ba am juróom benn at kese bopp bi lañ tojat Vox Populi wax na balle perdue la lii ko waral nag noix de cajou bi la loolu nag moom moo am enquête moo ñu ko yëgal ne am na benn femme boo xam ne am na ci blessé bal lañ ko dóor nii nga xam ne ay indien liggéey ci Nanda Kajo bi ñoom ci boppam tamit jàpp na leen jële ci ñoom lu toll ci vingt millions. bonne gouvernance transparence xel mën a tey ndax yéen kay Les Échos yëgal ñu tey jii na Mansour kan ak Makhtar Cissé bu Senelec ñoom dañ leen sàkku ci ARMP ñu bañ fa jaarale li nga xam ne moo di seen marché maanaam code des marchés joxe ay argument waaye ARMP ne li ngeen wax tegu leen ko fenn na tareet xotti mbir moomu leen yéen kay ko amal laaj na marché yu baree bari annulé nañ ko Senelec est-ce bëgg na lu leer ca dëgg-dëgg retard paiement am ci wàllu scolarité ci étudiants yi nga xam ne dañ leen orienté ci école privée yi yéenekaay bi di laas ne étudiant Macky Sall yooyu semaine bii di ñëw dañ leen di dàq ci biti ndax fayuñu commission ad hoc samp nañ ko ngir xool parrainage nuñ koy lijjanti ba mu bokk ci code électoral bi enquête na Macky ma ngay déroulé de waaye opposition bi ñoom ña ngay giita ngaas na xeex rek lañ fas yéene def démb la Macky jébbal ñi di gaynde yi li nga xam ne moo di drapeau national ñu fas yéene dem ca Russie mondial 2018 Macky Sall fi mu nekk nii tàmbalee xeex bi ca Russie ndax nag am na noo ko dem ba jeex loolu lu ñu yéene kaay bi di Vox Populi wax ne discours guerrier nag la wax ñi nga xam moo di gaynde yi yéene kaay bi laas na ñaax na leen bu baax a baax nee na amul benn limite duma tegal équipe nationale dem rek gagné coupe bi te nag compétition bi foo leen ci mën a yegg mu gën a sori baax na bu torop ci ci réewum Sénégal complexe nag amu ci askan wi yëpp dinañ ànd ak yéen manko doon benn match bu nekk jël leen ko comme final loolu laa bëgg ngeen xam dem leen ba jeex joxe seen bopp ndax Sénégal woolu na leen te nag nañu jël li nga xam moo di bàkku armée bi dañuy rey rek waaye kenn duñu toroxal te génération 2002 li lim fi def mën ngeen ko ba mën sax lu ko ëpp te nag nee na gaynde yi dinaa ñëw ci Russie ndax dinaa jël fukki fan ak ñaar ci ay congé ngir ñëw supporter leen waaye yéen kay les échos ne Macky ci discours am nag def na fa benn rëq-rëq ñu ne ko ban ci nee na ba muy lim équipe 2002 yi da cee boole Souleymane Diawara ak Mamadou Niang te bokkuñu ci fàtte nag kii di Bruno Metsu ak Jules François Bocandé jërë ngeen ci dégg ñu leen dégg si wajan seen si Dakar Matin point com incha